حتى بل المملكة الأوتان باقي asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokk jullit yi nañ ci sunu bokki murit yi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku nekk ci turam ak santam te leen xamal ne bu ngeen gisee sunu lajab tey bii lu lenn lu dul kër xaalimul Moustapha Cheikh Ahmadul Xaadim gii nga xam ni Cheikh Mouhamadou Mourtala Mbacke góor yàlla ga mën dañ cee joxoon ndigal ci lu war koo beesal. waaye nag ginnaaw bala maa nuyu kenn nag maa ngi jiital ci nuyu bi sëñ Sidi Muxtaar Mbàkke xalifatul haam fi tariqatil muridiya yal na ko fi yàlla yàggal lool te wéral ko ba nëel yi mu nëelal waajuram wa maamam ja yàlla may ko kattan gu ma ko àggalee ci jàmm ak salaam ko dala ko tal te ànd ko ak nun ak bépp jullit bi jaay i rasulullah léegi nag li nu fi dajale du lenn lu dul kër sëriñ Tuubaa gii nga xam ne mooy këru lislaam gii nekk ci përi kër gi daa yàgg def na lu ëpp fukki at te kenn ku nekk xam na ni kër boo fa defee fukki at war nga koo beesalaat nu war ko fa am yéene beesalaat ko te beesalaat gi bi ñu ko seetee yombul li muy laaj ci xaalis bari na bari na woo xam ni ñoo ngi tàllal suñuy loxo bépp jullit ak fu mu mën a nekk ku képp koo xam ne yaa ngi wax asaloon laa ilaaha illallah rek ñu ngi la ci woo nga yëkkati sa ñaq def ko ci këru yàlla gii ba ñu defar ko ba mu bees ba mu méngoo ak jamono ku gis kër gi ku ko dégg ba ñëw fi gis ko doo ci wax lenn lu dul akasa waaye fi mu ne kër gi xat na xataay goo xam ni mbooloo ma fi nekk dëj xëju fi bët barki dee moo njaay bi ñuy def kër Soro Diop bi am na ñoo xam ne saal bi sax mënuñu ci jot si ba di ci dugg di toog ci biti lañu lañu fanaan léegi nag loolu la ñu bëgg nag mu jeex wala mu mu wàññiku lool saal ñu bëgg fee def nag yokk jàkka ji yokk fépp ba ku fi ñëw am place bu toog te mu wér ñu ci woo bépp jullit nag lu ci woo bépp taalibe bi lépp lu waay am te leer kon ni moom def ko ci néegu bi yàlla bi mooy li gën nga di ko def feneen fudul ci néegu bi yàlla bi ñu ngi lay tàllal loxo di la ñaan nga def nga def nga def sa loxo ci liggéey bi yàlla bii te incha allah bu soobee yàlla ak yonent Sëriñ Bàmba dina mat kon asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jërë ngeen jëf. aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayidina muhammadin alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajmain asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yéen mbokki julli yi ñuy seetaan ak yi ñuy déglu yépp noo ngi leen di wax asalaamaaleykum di leen jot li liggéey bu rëy boobu nga xam ne ni ko sëñ Ibrahima waxe te muy euh, yeesal kër gu yàlla gi ni ko Cheikh Mouhamadul Mourtada tuddi woon te muy ñenn ñi ko wax kër Serigne Touba ci lépp di lenn ñu xam ne rek sëriñ Touba moom maanaam amul lenn ci àdduna luñ ko fi defal lu weesu jàkka ndax moo ko waxoon moo waxoon ne wàccal bu yóoti kullaha masajida wa biya basir man yakunu sajida moo waxoon ca nooru daari ni waccaxal buyuuti kullaha masajida yaa man yakunu naafiyan yaa man yakunu yaa naafiyan man laa yakunu saajida kon eh, sëriñ Touba lépp lu ñu koy mën a defal ci kaw suuf fi mu ne mooy jàkka jàkkee sëriñ Touba nag na ko Cheikh Sidi Baba melaloon noonu rek lay moom la kër gi eh, moom la jàkkee sëriñ Touba ji ci Paris melowoo eh, Cheikh Sidi Baba ba muy melal jàkkee sëriñ tubaa daa waxoon ne neexama mawla allazi yuridu qiyaaman aw wuqufan wa nicma mawa alufaati in yakun li salaati lillahi baytan fa huwa baytun aydan li musna silaati urifat li salaati fiihi wuquutun wa li ii xayruha min al awqaati yuqbilu nnaasu naxwahu bi quluubin jamaat bayna niyaatin niyatin ashtaati loolu mooy mu ne jàkkee sëñ Tuubaa de boo ko déggee fu ñuy jullee leen ndaxam daañ fa julli julli yi juróom daañ fa naafi la daañ fa lixtikaaf waaye itam saa yu ñu jullee ba noppi ñaa ngi fay dimbale way néew doole yi ña ngi fay joxew ñam ña ngi fay teral gan yi kon kër Sëñ Tuubaa lépp la ëmbaale kon nag ñoo ngi ci woo mboolem mbokki jullit yëpp lu ci waay mu def nga def ko te xam ne mooy li nga xam ne boo ko defee mu wóor defal nga ko sëriñ bi defal nga ko yàlla bokk nga ci ñu tabax jàkka ci yonent bi sallallahu alayhi nee na woon man bana lillahi baytan bana allahu lahu baytan fil janna waaw aw bana man bana lillahi masjidan masjidan bana allahu mislahu fil janna ku tabaxal yàlla jàkka ci kaw suuf mu tabaxal ko euh, kër ci àjjana ci loolu la ñëpp yi wër ñëpp ñëpp wut muy am kër gu àjjana yàlla ñu ko yàlla defal kon ñoo ngi ci woo mbokk jullit yëpp di xam ne daal kër sëñ Touba jàkkaa ngi fi daara jaa ngi fi ci lépp xat ñu war koo yaatal ñoo ngi ci woo bépp jullit te xam ne ku ci def def nga fu wér te wóor te lool rek moo am solo yal nañ ci yàlla dimbale. salaamaaleykum wa rahmatullah. salaamaaleykum mbokki taalibe yi mbokki jullit yi ñu ngi leen siyaar li leen jégalu di leen baalaax di leen baalaax. liñ leen li fàttali rek mooy kër sëñ gi gannaaw sëñ laa doon koo joxoon da koo bëggoon joxanu ko yàlla ak yonent fa sëñ Touba dimbali nu ban am ko léegi nag sëñ bi wax na noo koy beesal nooy xool ci sunu gis-gis ak sunu pas-pas ak sunu man-man mu mu xam ne war na noo beesal kër gi gannaaw xam nañ ko nag noo ko bëggal sunu bokk bëgg koo def nag nante def sunu jom ak sunu fulla ak sunu fayda mbirum sëñ Touba nag amul tànki gannaaw tànki kanam la am àdduna kenn defalul kenn dara kenn deful kenn dara lu waay def sa bopp bon nag noonu ci jàpp dégg naa maam Cheikh Rafal daana wax naan liggéeyu sëñ Touba bii nañ ci jàpp mu mel ne yéen koy doxal ngeen di sa sag bi ku ci jàpp mu dox ku ci jàppul mu dox bon nag nañ ci jàpp yàlla na sëñ Touba defal wér ak ndimmal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 xam naa suñuy kàddu fi muy jëm rek mooy ci ñetti point bi ci njëkk mooy lu waral yaatal bi ni ñu ko waxee rek nga xamante ni kër gi bañ ko jëndeek léegi jege na ñaar fukki at vingt ans te fii mu toll am na ay ay ay ay fuite ak problème étanchéité ki yëpp mu ngi ci biir nga xamante ni ni ko ni ko wolof di waxee rek naan lu lu yàgg màggat ba mu des lu nu yeesal kon nag looloo tax ñu woote liggéeyu yeesal bii bu loolu jàllee nag ay kàdduy soññee lay doon rek ni ñu ko xamee nun ñëpp nga xamante ni Serigne Touba ci boppam ba jumaay njaareem noppee Serigne Baye Sarr daa jóge fa mu nekk ca péncam di jublu si ji fi sëñ bi nekk di tëgg di tëgg ak i ndëndëm ba mu ñëwee sëñ Tuubaa laaj ko ni ko sa tëgg sa tëgg mi loo ci jublu mu ni ko Mbàkke da ngaa bari ba daan te bàkkuwoo mu ni ko Mbay Saar danaa bàkk waaye balaa may bàkku mooy bu bu bu sama ñaari sooroor ya ca Tuubaa sama sooroor ya ca Tuubaa bu taxawee loolooy sama bàkku kon nag ñu xam ñu xam ni sëriñ Tuubaa digganteem ak tubaab yi la woon ndax ñoom demoon nañ ba ni dañoo bëgg génne Serigne Touba ba nga xamante ni comme niñ ko doon waxee ci seen rapport yi nous allons l'exiler jusqu'à ce que les les agissements causés par ces enseignements soient oubliés à jamais au Sénégal ndeem ndeem ca Sénégal ñoom yéene tubaab yi bu matoon ca Sénégal jumaay Touba du fa taxaw dara daray murit du fa taxaw kon nag bu yàlla defee ba ñëwaat fii ci France fii ci Paris nga xamante ni ñoom ak sëriñ Touba woon kër Serigne Touba am fi ëpp na ñaar fukki at ba tey jii ñu ko yeesalaat murit bu ko gis rek sax sa sa sa sa sa yéene yëpp war naa nekk ci fexe ba sa ñàq dem ci. te noonu ko sëñ Bay Jaxate daan waxee rek di ko soññee naan danoo war a booloo fab xaruk dee te te fab li ñuy taaxee ko jëndee wataaki fas jox ko sëriñ bu mag bi mu jëndal ñu ci taax aki wataaki fas ak ngërëm ca aljana képp lu waay bari bari la na la wóor ni fi nga koy bàyyi fi lay des kon nag ñi ñii ñii sunu borom mane gan ñëpp te nuy te te te te nu te xaalis ak mboolem nu nu mën a jàpp ci liggéey bi rek ñu ngi leen ci woo ngir ñu jàpp ci la ca mooy liggéey bi toll na ci cent vingt cinq mille euros moo koy defar taalibe taalibe yi fi nekk Europe nag ñëpp kenn ku ci ne rawatina ñiy yëngu ci kër Sëñ Tuubaa gi ku ci ne deux cent euros lañ la sas ku man lu ko ëppit baax na ba tey ku am ba milliards it baax na la mooy képp ko nga xamante ni bëgg nga cee bëgg nga cee jàpp am na site internet bu ñu taxawal bu ñuy wax rénovation touba aulnay point fr wala point com lépp képp ku ci dugg népp noo bëgg a def rek ba bëgg a tàbbi ci liggéey bi di nga ko di nga ko di nga ko mën a def boo bëggee faye carte bancaire fépp foo mën a nekk ci Europe bi mën naa ne boo bëggee yónnee chèque it am na adresse su kër Sëñ Touba bi. lépp noo bëgg fexe daal ba tàbbi ci liggéey bi danga ko mën a def kon foofu la ñuy taxawal suñuy kàddu di jéggulu ñëpp te di ñaan liggéey bi Serigne Touba dimbali ñu ci bañ daje ceeg lu kawe kawe suñu njort te taalibe yi xam ni na ko sëñ bu soo daan waxee rek liggéeyal ñàqal Serigne Touba dana tax am barke jox ko sa alal dana taxa a bari wërsëg te jamono ji ñëpp bëgg am barke ñëpp bëgg wërsëg kon nag ku bëgg yooyee nañ njëkkantoo ci liggéeyub Serigne Touba bi kenn ku ne fexe cee man sa morom wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf تسليما هب من الفرحان على الذي ربي لي فيما كتبت رجزا دار فادي بتوجه الجزاء ربي لي tahliyatu